directement euh, est-ce que xam na fi mu war a jóg dem fa wala dafa amul ñu ko jàppale parce que mën na woy macha allah euh, boo ko fekkee ci boîte yi xam ne talent kese la euh, kenn daaxu ko woy ci faramaare ni pourquoi mënuñu xaar deuxième album pourquoi mënuñu xaar loo xamante ne bi mooy déclencher Bambaali ñëpp teg ci seen bët. mën naa mën naa génne album bañ a déclencher wu. lu tax eh, xanaa da nga ko dul togg. du loolu Bambaali da ngaa mën a woy soo génnee album soo soo génnee album déclenché wu. bu doon mën a woy doo ngay tax nga déclenché wu. waaw kon heure bi yaakaar naa dina metti na nekkul ci cadre loolu xam nga carrière hmm. la ñu wax déjà un pour commencer peut-être mën nga am carrière yow def ko pour bës pour ñu lay tudd ci coow ci génne na son bi dégg son bi ki muy gaarawaale eh di di woy na papa eh woy na maman comment naa expliqué di woy na bàjjan moom mooy tonton yooyu noonu ci boppam c'est pas Bambaly Bambaly Seck dama jug pour am carrière xam mooy lan. Mm-hmm. naa toog dix ans kenn du dégg. du ma jàpp mukk que ne je retard du ma jàpp mukk que ne c'est trop parce que xam tax moo la ko ñun carrière bi nga xamante ne ñun moom la ñu opté boobu. waaw ah. ñun balaa ñoo xam fa ñu jëm dañu xam fi ñu jugee ba pare te man bu ma xoolee fa ma jugee wax naa la ko ci dès le début ne man j'ai pas droit à bëgg naa jamono ju ñu naan bambali sek bu boobaa duñ ci am dara luñ ci laam-laamee. nga xam ne dafa tarbiyu du ñu am dara lu ñu ci lam laale doo sañ sax taxaw jël kenn di ko tekkaleek bàmbaale doo ko sañ parce que bu boobaa dina doon leneen loo xamante ne du nu ñuy lam te loolu noonu ci boppam bàmbaale am naa droit am gëm-gëm bi ne foofu laa bëgg a yegg te mën na ne. bàmbaali ku la fekkul ci boîte du xam ndax mën nga wayam déet ku la fekk ci boîte ngay laay day xam ne kii bête de scène la j'ai l'habitude de le dire souvent xam nga euh, tey ku mel ni Wally Seck mën na génne album sax wala single nga bañ ko déglu nga fekk ko ci euh, live nga ni waay waykat baa ngi nii man euh, par exemple animateur laa buy déglu ay live Wally que ay album Bambaali Seck ku la fekk ci boîte dafay xam ni bête de scène nga pourquoi mënoo extérioriser loolu li nekk ci boîte bi nga fexe ba sénégal yi découvrir ko waaw man déjà hmm. je jour deux fois dans la semaine li nga xamante ne je pense que man maay le seul jeune fii nii buy jouer deux fois dans la semaine dafa metti waaw mais jouer deux fois. maa ngi jouer deux fois dans la semaine nit yi ñu may sama euh, soppee ñu ngi may fekk si. parce que xam mhm. dama loo ko wax ci début ba yow nee nga ma naw da génne sa album xam nga après ñu dem gisaatuñu la nga génne album nga toog temps boo xamante ne tu t'es ah. fait rare. ok d'accord dama rare parce que xam hmm. dafa am loo xamante ne mënoon naa xëy bés man boog su ma ko bëggee woon nu mu yombee noonu mënoon naa xëy bës sama yoon yomb ci ah mooy damay damay wéeru rek. wéeru waaw. da war a wéeru parce que am nga ci ñëw wéeru mais est-ce que da ah, dem déedéet ah, waxuma waxuma boobu fii ku fi nekk moom doomu aadama a jàppale. waaw mais bu ma nee. Hmm. te Bambaale pourtant gis na yoon boo xamante ni moo gën a. li gën a neexati ci seen wéeru bu yónnee xaalis Sénégal doo fay dërëm. waaw. mu yoonu sa mag yi jàppale la wala sa papa yi. Mm, waaw sama papa laa ko tàmbalee muy na Seck nga xamante ne ndaanaan la fii ci réew mi. Mm-hmm. doo tudd waykat te doo ko tudd. dëgg la ah. taxaway ñëpp ñaa ñaata nit la xam fan la demul mais man Bambaly Seck ci boppam man maa ko wax ma ne ko papa lenn rek laa bëgg ñaanal ma ñaanal ma donc. comprendre te doon na ko mu wutal la ay link nga dem. non parce que link mënu cee ñàkk. nga gis dara sa doom maa lay maa daa boole naa la ak sama doom wala dénk naa la suma doom loolu mënut a ñàkk mais dama lay expliquer ne la man Bambaly su ma yoon mënoon naa gën a yomb waaye man ku la ne bëgg naa loolu. bëgg lu jafe. waaw man moom bëgguma lu yomb man lu yomb sax dafa may tiital surtout boo nekkee ndaw. ku nekk ndaw ci kaw suuf war ngaa war ngaa ragal lu yomb. ak musique ak ni mu méttee Bambaly nga nekk doomu Faramareen bu mag di jóg ak daanu rek. balaa maa balaa ma ci dugg xam naa ne yombul de. pour ñëw rek mbasa mbasa gin saa affaire yi ñëw rek sotti mënta ne de kon ñëpp doon woykat mais xam luy problème bi man dama la waxaat encore dama koy répété waat j'ai pas droit à l'erreur man dama judd fekk ay bibliothèque dama judd fekk exemple yoo xamante ne tey waruñu ma tey waruñu gis bambale di lam-laame dara te loolu en tant que jeune man ba ma am 18 ans laa am ah Sénégal man je suis premier jeune fii Sénégal le premier artiste jeune ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam ak album. comme naa musique ba maay am 18 ans mais lu ñu wax waxante dëgg showbiz du cadre génne single wala génne album wala diwee sa papa wala yaay doomu diw non xam nga dafa am benn affaire bu am management de soi. d'accord yar sa bopp ci lu bari bañ a wéeru mooy maanaam bëgg bañ a tàmbali yomb ay diwoy sama papa ak diwoy samay kii déedéet dafa am loo xamante ne yow la yow yaa koy utal sa bopp yaa koy amal sa bopp xam mooy lan. Hmm. éducation un pour commencer xam ni ngay comporter doomu aadama yi. d'accord jox cër doomu aadama yi yéene doomu aadama yi jàmm. gis nga àddina bii nga ne boo boo boo jàmmuwul yàlla suñu borom sax xanaa boo may ñi ñi jàmm sax yàlla may na la may jàmm parce que xam nga yàlla suñu borom fa teg doomu aadama la. loolu nga war a njëkk a taaraan sa bopp ba pare ni ngay comporté ak doomu aadama yi boo jugee ci loolu xam fa nga bëgg a yegg xam la nga bëgg a def mais loolu mais c'est des années de travail xam mooy lan dëxañu làqatu. yaa ngi dëxañu yow. ah man de wax dëgg yàlla bu ma defee sotti balaa ma defaat sotti yàlla xam. comprends nga yaa ngi nii naan ma ay xaw ma lan pourquoi génnewaatoo album. waaw ça fait sept ans génnewuma album parce que xam ci diggante bi maa ngi tar doon tarbiw jéem a ut expérience di jéem a xam lan mooy coono jéem ut musicien tey nga woo musicien bi mu ne la non ñëw ma wala mu wala mu baala fi dem jouer keneen nga war a dem à la dernière minute wala dem lijjanti beneen musicien bu la jouer coono yooyu boo paree li nga yor bëriwul nga war ko jox musiciens yi dem naxante moom ne gars yi lii fi ne de affaire yooyu kër kam taqale dem jouer fii tey bu neexee nga séddoo kook ñoom bu naqaree nga séddoo kook ñoom ñenn ñi duñ ko mën a digérer dañuy daw ñeen ñi dañ lay yéene yow waykat bi dañuy toog xaar ko fa comprendre coono yooyu yëpp répété fii dem jouer boîte bi boîte bi ñu ne la ñu lay jaay kii naa la non xam nga la la booy sincèrement ñun génnuñu ci quoi parce que instant bii nii ñu ngi jouer mais kii courant ñu ngi yàq courant te en plus xam nga boîte bi duñu ci am coono yooyu yëpp coono yooyu yëpp ma ko dund parce que dama ko bëgg a dund pour xam te fii ku dundu lu metti doo xam. man nag yooyu dama cee jaar te damay sant yàlla. xoolal nga orchestre. naa orchestre bien sûr. fan déggoo ma ne dama jouer deux fois dans la semaine. fan ak fan ngay jouer. tous les mercredis maa ngi Villa Cristal Almadi ex Nirvana. chaque mercredi jour de semaine laa jouer te billahi wallahi taala yàlla nga may dimbali macha allah soirée yi moom xoolal benn affaire la. retrouvaille lañ ko def. tous les mercredis Villa Cristal Almadi chaque samedi maa ngi gaynde fi sama papa Kéba di jouer man Bambali chaque samedi maa ngi gaynde comprendre ni si kay muy fees dell ah beneen affaire la kenn waxatu ko doo takk jabar. parce que yow loo xam pour takk jabar euh, ci wewu boy ba tey bambaali lépp lu ma lay wax man ci mbedd mi laa koy déggee ah bambaali léegi naa xale jigéen nañ ko sonal trop. fii ka la xale jigéen ñi sonal tey nag artiste euh, artistes yi souvent euh, ñi xale jigéen ñi di sonal leen ciy génn mooy teel a takk jabar woon nga fi date de mariage wala ay kii ay tricage la rek. non woon naa fi waa. lu tax takk ko ah non damaa bàyyi. dama reculer pour mieux sauter xam <laughs> nga problème bi mooy boo bëree gel il faut nga jël sa temps xool ci kan ak nga ci mën a takk quoi xool ki lay arrangé ak yooyu. d'accord xam nga gel alors alors dañoo bari. alors Bambaly euh, fi may tëjee yow émission bi yaakaar naa ni. Euh, dama la doon tooj xam naa sa doom yi dinañ ma mere ku ci mel ni Chacha Bambali donc maa ngi koy nuyu. Eh, Chacha sama sama sama doom ji ak ñi nga xamante ne bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi. ñoom kan yi ñoom Sofie ak yooyu noonu ñoom soxna May. voilà euh, projet yi lan la rapidement donc balaa ñuy balaa ñuy balaa ñuy terminer. waa juste pour xamal leen ne déjà sortie bi li ko waral mooy pour xamal Bambali que ne ku bëgg xam Bambali fi muy joué fi muy defee show tous les mercredis maa ngi Almadies Villa Cristal chaque samedi maa ngi gaynde ah même bu dara man nii nii nii nii maa ngi waajal lu doy waar lu doy waar laa nekk di waajal parce que dafa am benn projet phare benn date boo xamante ne événement la bu ñu séntuwul woon ci Bambali. ok moo am ci deux mille vingt deux bi incha allah te du yàgg dara dama leen di communiquer weer beeg jour beeg heure lépp. incha allah looy waajal yow xanaa grand théâtre la. non euh, man de xaw ma fan waaye benn affaire moom xam naa ko date bu kenn sóoraale woon ci yi 2022 bi incha allah ci kàttanu yàlla. ci 2022 moom laay waajal te loolu dafa am benn court circuit dafa am lu may waajal génne ko ba pare comprendre expliqué nekk ci ba pare après ñu soog a song loolu incha allah. mais loolu daal dina mais bëgg rek soppe yi dala seen xel te xam ne Bambaly dafa am dong li mu bëgg. ah da dafa bëgg am euh, mooy maanaam lenn rek mooy nekk ci formé wu formation. ci formation ba am lu palpable. du ma topp effort non da ngaa mën a way non yaay gëmal sa bopp non demal bul faale dara parce que quand tu brûles les étapes après tu risques de le regretter ci kanam amul sens nga def nii ba pare defaat nii man nii rek ba tax na Bambara Seck incha allah bu ci kenn tàyyi te te te nag wax dëgg yàlla tàyyi ñu boobu ba léegi ñu ngi may dimbali di ma fekk si je reçois énormément de message kon maanaam ci gàttal sant yàlla bi nga xamee ne bëgg nañ la. Mhm. mais nañu xaar ci bambal yi lu baree baree bari incha allah maa ngi ci. Mhm. maa ngi ci te que maa ngi waajal date bu doy waar boo xamante ne sóoraale woon ko ci man. ah bon waaw ah, maa ngi koy waajal. ayca ah, en tout cas gërëm nañu la sant la bu baax a baax Bambaly ci amoon la tey ci Kër Bamba Show lan mooy nekk kàddu yu tàggatoo yi. waaw tàggatoo yi mooy euh, day sant yàlla di jéggalu nag bu fekkee dañoo wax dara lu déranger wala lu ëpp. Mhm. mais c'est juste pour bien fair le choses parce que nit dafay war di sóoraale ëllëg loolu rek la. Euh, di jéggaluwaat ñëpp euh, di sant nag ci bu ñu sénégalais yi xàmmeewee accepté ñu en tant que chanteur pas en tant que doomu diw wala dara mais en tant que chanteur ñu accepté ñu ci loolu alhamdulilah waaw euh, ñu ngi leen di sant bu baax askan wi ndax ñoom lu fi waay mel rek ñoom ñoo leen ko def. d'accord tax na yàlla <laughs> seen jàmm yàgg waa Feeling Dakar waaw yéen moom da ngeen a bëri feeling macha allah comme ni ma koy faral di waxee. Ah, ba tax na yàlla na seen jàmm yàgg di nuyu borom kër gi. di kontaan di nuyu ñëpp suma entourage beeg fans yeeg soppe yi suma doom yeeg bàyyiwuma kenn yàlla na seen jàmm yàgg gis naa support bi macha allah alhamdulilah yàlla na seen jàmm yàgg. merci beaucoup Bambaly ñu ngi lay gërëm bu baax a baax en tout cas amoon nañu mbégte jàkkaarloog yow fii ci euh, Kër Bamba euh, Show di jaajëfal euh, Alioune Diop mi Alioune mi nekkoon ci régie bi jaajëfale si toute l' équipe de Feeling Dakar du ma fàtte nag suma tailleur bi di Sanu Thiaw design mi nga xamante ne bii moo nekk Castor di ko daggate numéro téléphone am di 77 874 05 jox leen dig daje incha allah ci beneen jataay Kër Bamba Show. Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu la del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox yaa ngi Feeling Dakar di am info yu leer ci people et sport politique